mais dañuy xale yi dañuy wax naan robe zëyëf la. loolu nag dégg naa ko gars yi sax dañ ko tiktok. <laughs> attention kii boo leen ko gisee xam ne robe yëfam la. Boubacar yàgg naa wax loolu waaye dama ko bëgg daal ma dama bëgg lu rafet. d'accord.